bëgg naa xamal la ñëpp que ne euh, l'État du Sénégal jël na luy tollok ñetti milliards jagleel ko éleveur yi pour jappelé leen ci liñu naan euh aliment de bétail moy li dundal jur gi parce que comme ni ma ko waxalee fan yële président de la république jërna luy tollok 67 milliards def ko ci askan wi jappelé doomu aadama yi ci dund jappelé doomu aadama yi ci fay courant jàppale doomu aadama yi ci fay seen facture ndox loolu mu def ngir doomu aadama yi rek dene bàyyi ma yi tamit mala yi tamit ci la ñu bokk moo tax mu jël lu tolloog 3 milliards mu teg ko ci loxo ministère de l'élevage pour mu jàppale sàmmkat yi ci wàllu aliment de bétail. loolu aussi liñ ci gën a rafetlu mooy nee na aliment bétail bi na jaar ci ay commission départementale te préfet yi jiite ko waaye ñu dugal ci entité yëpp mooy organisation éleveurs yi. mooy syndicat yi waaye bu ñu bàyyi gannaaw li nga xam ne moom mooy les service de sécurité muy gendarmerie muy police fu mu am muy douane lu tax parce que def bëgg lii nii mu def naam jënd nañ ko waaye mu dem ci ñi nga xam ne ñoo ko yelloo sur ce plan mënuñu lu dul rafetlu ko par rapport ak li ñu gis ci suba ba léegi def nañu commune de Yaali def nañu commune euh, Sagata def nañu commune Warxoox fii la ñu mujjee au niveau du ranch de Dolly et li ñu gis nag wax dëgg fa yàlla dal na suñu xel lu tax mu dal suñu xel ben ñi ci bari ci ñom taxawal na seen commission départementale ou seen commission euh, communale pour procéder au euh, à la distribution proprement dite benen bob doli aussi li nga xamné mom moy les instructions yi nga xamné waxon nañ leen kenn ku ne ci ñom jël na un quota important déje ko ñi nga xamné ñoy transhumant